yow ya, salaamaaleykum salaamaaleykum na moo ngeen xar kanam gi de ah yee maa leen fuuf maa leen fuuf maa leen ropp maa leen talis maa ngi TGV ma la koraay yow dajee ngi moos haa dajee ngi jibril faw mu yoo that they be tell me Saint Esprit mu sell me. truc la bu raxul bi boy me yore mel me. Legal. gars mon spit xakkam be légal Me foo ci mic du seen égal trip ego Young ngi ci yoon wi ego ndool ci fol nga yax ci bool nga xale yi foo ci leggo gémmiñu niñ te leggo kebetu rek album bu mag bi vécu album bi war a ñëw gastonisé lumbu yi a distância ñu ngi jeew gem bi mais dara tous nada dara xewul <laughs>